maa ngi leen di bu baax di sant ñépp di leen jaajëfal bu baax a baax jaajëfal askanu senegaal mi nga xamante ne génn nañu ci mbooloo mu takku ci bés bi bokk ak ñun bésub set setal bii nga xamante ne ku jóg rek xamal ne sa bopp nga jógal waaye ku jóg tamit xamal ne sa réew nga jógal amul lenn lu gën a noble setal fi nga xamante ne mooy sa dëkkuwaay waaye setal fi nga xamante ne mooy sa réew ak foo mënti nekk nag ak loo mënti def di jaajëfal balaa may gën a sori ministre yi nga xamante ne ñoo doxal organisation bi ba ca bës bi ñu toll tey muy principalement ministre assainissement ak hydraulique ak ministre environnement ak transition écologique ak ñëpp bépp ministère boo xamante ne impliqué nawu ci ndax ci solidarité gouvernementale la ñu nekk ci collégialité lañ nekk te gouvernement bi yëpp laay félicité au premier titre le premier ministre mi nga xamante ne mooy coordonner l'action de ce gouvernement là kii en ce moment même mu ngi ci beneen site di def la même chose bi nga xamante ne moom laay def maanaam impliqué wu ci setal suñu réew may jaajëfal rek ñëpp ñi nga xamante ne ay école lañ ay responsable école lañ ñiy yar xale yi ci set ak setal ba tax ci bés bii ñu woo leen génn leen massivement pour ñu bokk ak ñun bésub set setal bi nga xamante ne warul doon rek benn bés ci bés yi waaye suñu yéene mooy mu nekk loo xamante ne dañoo ko dugal ci suñu doxalin ak ci suñu jëfinu bés bu ne yéene gouvernement bi ak yéene président de la république bii ma doon mooy weer wu nekk ñu am bés bu mel nii ba ñëpp ñi nga xamante ne ay tuut tànk lañu bu ñu màggee màggee xam de Sénégal weer bu nekk ñëpp dañuy jóg ci kër yi ci koñ yi ci commune yi ak fépp ci biir réew mi di setal parce que réew mi bu saltee ñun ñoo ko saltel bu setee ñun ñoo ko setal kon suñu responsabilité ñun ñëpp mooy bañ a bañ a saltel waaye suñu responsabilité ñun ñëpp mooy bu saltee ñu set ñu setal ba mu set ndax suñu wergu yaram daf ci am loo xamante ne ci loolu lay tukkee ñu mën ko garantir suñu bopp lii nag défi bi mooy lan mooy naka la def ba maanaam weer wu ne ñu mën ko amel te loolu laay woo ñëpp ndax ci jubante lañu woote te jubante bii du doon mbirum gouvernement bi du doon mbirum président de la république day tàmbale ci jubal ba du ñu soxlaa jubbanti loo xamante ne jub na ba pare ci suñu comportement au quotidien waaye day tam am solo tamit ci bu ñu dee jubanti bépp sénégalais foo mënti nekk nga xam ne lii jubul yow sa responsabilité la nga jubbanti balaa nga ciy xaar benn autorité parce que gouvernement bi mënul nekk fépp waaye lu ñu mën mooy wane yoon wi wax sénégalais yi fii la ñu bëgg a jëm ak yéen di ci diisoo ak yéen saa ne parce que xam nañ responsabilité ñu ci am responsabilité boobu ci yéen la tukkee ndax seen responsabilité ngeen jël jéebal ñu ko te moom la ñuy doxal te gëm nañu ne doo leen ñu jiital ba pare deltu gannaaw di ñu seetaan waaye di ngeen ci jàpp bu baax a baax ndax ñoo bokk Sénégal ñoo bokk lépp asalaamaaleykum wa